asalaamualeykum mbokk yi nuy déglu noo ngi leen di nuyu noo ngi leen di balu àq itam bëgg leen a jottali yóbbante bu jóge ci sëriñ Babacar Sy al mu wax ni nañu ko masawul nit ñi baalu leen àq ngir xew-xew bu ñu dëgmaloon fas yéene ko def ni ki ëllëg

ñépp di ko bàyyi xel mu di jàngoro ji nuy wax ni def fi dugg walla jàngoro ji nuy wax ni daf fee wàcc ndax boroom bi fa tabaarakallahu ah, li mu am ci ay virus te virus yëpp mi ko suspendre mu tiim nu te virus yi wuute nanoog ñun li tax ñu wuuteeg ñun moo di ñoom kàddu borom bi rek lañuy déglu fa tabaarakallaahu yàlla wax ni dañoo bokk ci junuut yi les régiments lu mu leen sant moom lañuy def fu ñu tollu ndigalam la ñuy déglu yàllaate nag fan yii mu mel ni am na fi lu dugg si ci biir réew mi fa tabarakallahu ah mu doon loo xam ni itam dañuy delloo suñu bopp ci suñu boroom ndax yàlla jamono boo ko fàttee mu fàttali la boppam ba nga fàtte sa bopp dootoo tal sa bopp tax na rekk yu ci bari la Cheikh El Hadj daan wax ni tawat maanaa jàngoro mën na fàttali doomu aadama boroomam waaw delloo la ci sa boroom daanaka temps yëpp mooy li xew ci réew mi koo gis jàngoro ji lay wax waaye itam comme yàlla baaxe nañu arme bu ñu mën a yaakaare delloo ko gannaaw te mooy ñaan ñu dellu ci ñaan yi bañ ko xeeb waaye ci ñaan yi lañu cey jiital mooy ay istigfaar yu dul jeex waaw borom bi war nañu ko jéggalu war nañu ko baalu jàngoro bii ñu wax ni wàcc na fi dafa am jàngoro bu ko yées waaw te mooy ñagas-ñagasi xol yi parce que ki nga ki nga yéene yiw ah fa tabaarakallahu kooku yàllaay seede seen diggante mais ki nga yéene safaanit yàllaay seede seen diggante te réew dana dem ba tëdd te dara taxul mu tëdd lu dul xol yu ñagas ko defee kenn ku nekk leeral xolam ci digganteem ak moroomam waaw jéggalu borom bi julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rek lu diisoon wala lu ñagasoon ci sa xol nga fexe ba dind ko ci kooku mooy yées maladie yi ñuy wax ni ay virus wala leneen waaw bu ko defee ñu fàttaliku ci suñu borom ñaan ci barke mag ñi nu am ndax mag ñi épidémie daawu leen déranger parce que dañ ko daan um waaw am na nu ñu ko daan ume ci seen digganteeg seen borom ba na mu waroon a yaatoo du président de la république jël na ay responsabilités wax ni nañu ko ajandi ñi nu bokkal réew mi ñëppit d'accord nañu ci ñu ci bari boog ci ay chef religieux d'accord nañu ci ñu ajandi ko moom la sëriñ bi waxoon sëriñ bay si Mansour al Khalifa wax ni nañu ko xamal nit ñi pour won leen ni rek lu nu mënula baña bañ gàntu la moo tax ñu def ko mi ngi jóge tabarakallahu ci

ma ni ko daal lu ma dal daf ma dal ci événement bi xew munima lan la ma ko j'ai peur wa ta xamna raison bu tax ma wax ko wa yàlla nak len rek moy meuna tax mu jéggal nu moy kenn ku nek jaamu boromam ci moromam la ngay yene sa morom nga yene ko sa bop la ngay yene sa bop nga yene ko sa morom lor rek kay meuna tax moom yàlla mu bàyyi mais tant que defuñu ko métit dafay gën a bari jaaxle dafay gën a bari leneen dafay gën a bari bu ko defee ñu jéggalu ko baalu ko moom borom bi waaw tabarakallahu mag ñi nañu ko daan jéggaloo waaw gis nga cheikh alhaaj malik radiallahu taala anhu xam boroomam moo tax keroog bi ñu ko tàggee doomam bu jigéen di taawam soxna fat si fa ñu ko fekk mu toog di jàngale ñu ni ko faat si faatu na dënnam rëcc c'est tout à fait normal ku ñu tàggee sa doom muy sa taaw sa dënn rëcc waaye mu del si wax ni astaghfirullah mu ni daal faat si bi ko yàlla bind tàgguwuma mu jël ruuxam sama dënn di ci rëcc danaa ko jéggale son borom ba may dugg bàmmeel waaw faam loo xam ni ñoom mag ñi ñoo ko mënoon te lu am solo la tabaarakallaahu rafetal seen diggante rafetal seen ànd ñoom mag ñi léegi fi ñu toog ci salle bi maa ngi leen di nettali ma ni leen sëriñ Fàllu Mbàkke yal na yàlla yokk leeru bàmmeelam dafa mës yar fas ba mu rafet mu ni nañ ma ko joxal sëñ Babacar si sama mbokk ma ca Tiwaawan ñu indi fas wi jox ko sëñ Babacar mais ñaari mesures yi sëñ Babacar njëkk a jël bu njëkk bi mooy dafa wax ni fas wi bu ko kenn war ndax ki mu jóge ci moom mu ni bu ko kenn yeewit ndax ki mu jóge ci moom nañu ko wutal wudd wudd lañ ko wutal bàyyi fas ci biir wuddoo ba ni mu daanoo pour won la considération yi ñu amoon kenn ku ci nekk ci sa moroom loolu moo indi woon souplesse ci biir réew mi waaye bu fekkente ni koo gis te yéene ko safaan mais fan la yàlla jaar pour pour pour pour pour dindi loolu waaw moo tax ma ni kenn ku ne na jaamu boroomam ci moroomam waaw fexeel ba li nga yéene sa bopp nga yéene ko ki nga dendal waaw loolu mooy li nga xam ni moo mën a woyefal réew mi waaw ñuy ñaan nag yàlla dañu koy ñaan parce que ak sëriñ boo mën a am ak loo ko fonk-fonk doo sukk ci kanamam ni ko may ma parce que du moom moo lay may waaye da nga ko naan ñaanal ma cela veut dire que yëf am na boroom waaw moom moo lay ñaanal ca koog kon nañu fexe ah, ba tabarakallahu yooyu yëpp ñu di ci bàyyi xel waaye daal sëriñ Babacar Sy Mansour dafa wax ne ñu wax leen ni dañu fomm wax na ma ni ma bu nu génnee ci koor gi ñu réorganiser ko waaye individuellement ku bëgg nga dem ca rawdu ba ziyaar rawdu ya ca Tiwaawan nga dem fa ngir yàlla kóllëre bu ko defee loolu rekk lañ ni woon ñu wax leen ko pour ngeen xam ni lu lu gaar si la nangu nañ ko itam waaw mais taxul ñu bàyyi ñaan nañuy jël ñaan yi tabarakallahu continuer ko pour réew mi pour nit ñi kenn ku ne ñaanal mbokkam yal na yàlla nangu ko nangu ko ci biir nangu ko ci biti yàlla dolli nu wér yàlla dolli nu sutura yàlla dolli nu barke yàlla dolli nu xéewal fa tabarakallahu loolu rek la ñu ni woon ñu delloo ko mbokk yi wax leen ko waaye itam ñu sant leen ndax seen engagement waaw engagement bi nu jëloon pour ñëw ci ziar bi parce que kenn ku ne mën nga ziar ka nga am ci sa biir nekk waaw mais engagement yi si jëloon ñu wax leen ni yéeg na nañu ko te rafetlu nañu ko yàlla mi am pay yàlla na leen ko fay barakallah ah waaw kii moom lañu wax ne eh, dañu koy raxasoo pour wàllu hygiène ah, même bu dara xewul sax raxas sa loxo moom dafa bokk ci li bi santaane waaw tax na rek dañu koy nangu di ko rafetlu di ñaanit lañu ci yéene yàlla won nu lu ko ëpp ci biir ak lu ko ëpp ci biti fa tabaarakallaahu ñu ngi sant ñëpp di ñaanal yàlla ñëpp di wax chef religieux yi ñu ko bokkal ni d'accord na noog ñoom d'accord na nu ci le président la république ni mu tërale yàlla na jàmm njëkk ci yàlla na jàmm mujj ci asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa